mbokk ñuy teewlu ci Sénégal set tey ñu am mbégte dalal ci suñu jotaay bi docteur Cheikh Dieng moom mi nga xam ne ni moo nekkoon candidat wallu Sénégal ville de Pikine docteur ñu ngi lay nuyu. mais Sénégal set maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziare bu baax a baax di nuyu tous vos internautes. Hmm. waaw docteur démb nga def caravane ba léegi sax fii nii ci seen quartier général bi militant ñu ngi fi bëri lool ngay revendiquer la victoire au niveau de Pikine mais Timbo aussi di ko revendiquer. ci lan nga basé wu exactement pour ne ville de Pikine yow yaa ko gagné. gis nañ ni bi ñu élection ba ci suba sa. waaw ba ci guddi gi sax d'ailleurs. Mhm. donc lañ gis candidat Timbo. Mhm. donc tàmbali woon di euh, wër Pikine di mhm. defi karawaan. di revendiquer une victoire. ñun nag boobu dañoo kalmoon toog jàpp suñu ñàmb. nekk ci liggéey bi nga xam ni. chaque candidat moom la war a def buñ buñ paree élection. surtout. élection département boo xam ni yaa ngi fukki département ak ñaar il faut que nga rassembler procès verbal yi jógee ci euh, yi jóge ci ci bureau de vote yëpp pour xam pikinoise yi ak pikinois lan la ñu wax ñun boog dimanche ci guddi lundi ba mardi ci la ñu nekk effectivement biñ amee tous les procès verbaux finir ñu pare saisir ko ci euh, sunu ordinateur ba def calcul yëpp lañ gis ni ñun ñoo gagné ville de Pikine et partie partir de ce moment donc on effectivement fait une une caravane euh, de démonstration au niveau de la ville de Pikine pour euh, wane euh, sunu victoire mais également pour artu président Macky Sall parce que dafa teeyoon xel ñu voté ba ci guddi gi rek nga commencé di caravane c'est sûr amagoo PV yëpp. comme ni ko waaw opposition bi defee. ci suba sa nga caravanaat bon ñu ko waa opposition defee loolu sans engagement man gisuma ma man man gisuma ko ko def. man man moom la la ma def la ma def man laa xam. Mm-hmm. Mm-hmm. bon je suis pas là pour répondre au nom de barte Dias tu peux aller lui poser la question. Mm-hmm. donc euh, je disais donc euh, bi nga euh, bi nga xamee ne kon. gis naa Timbo. dimanche ci guddi ak lundi donc mi ngi war ci mbedd Piquet yi di tambambaalu naan moom moo gagné donc j'ai aussitôt flairé le coup parce que ñun ñëpp ay politique lañu te Macky Sall lu mu tàmm la le coup d'une stratégie de confiscation de notre victoire. parce que comme ni nga ko xamee. Macky Sall perte na mhm. Guédiawaye de manière flagrante. foo xam ne mënu fa yëngal perte nag Kër Massar de manière flagrante foo xam ne munu ko nier non plus mais Pikine donc la différence de voix était était moins notable c'était seulement 320 voix à l'échelle du département loolu donc évidemment c'est une marge bu faible boo xam ni il faut nga jël temps def compilation résultat yi benn par benn ba booy wax mu nekk loo xam ne wax fa dëgg yàlla luy tegu ci ay chiffres la luy tegu ci expression de la volonté populaire la. mais yéen euh, compilé ngeen euh, euh, résultat yëpp am ngeen résultat yëpp kon vous êtes sûr maintenant que yéen a gagné Timbo. mais alors loolu moom fi ne fi toll seen plus. mais est-ce que mun ngeen ñu. Ah, citer ah, waaw waaw boo boo waxee boo boo waxee pare ah, da ngay déglu wala wala wala nga àggale boo àggaleel. <laughs> boo ñu mënee wax aussi yan commune ngeen gagné exactement. Et bon, euh, je n'ai pas ça en tête. De toute façon, les résultats compilés sont dans, sont dans l'ordinateur. Si vous voulez, après. Mm-hmm. Mais ce que je t'ai le résultat global. Mm -hmm. Ce qui est clair, c'est qu'on a gagné mm-hmm. au moins 7 communes. Mm-hmm. Sur les 12. Sur les 12. communes yooyu mooy commune Djiddah Thiaroye Kaw. mooy commune euh, Pikine Ouest. mooy commune. Euh, ginaaw raay sud. ginnaaw raay sud. mooy mooy commune nu sur mer. mooy commune nu euh, Thiaroye gare. et euh, la sixième commune. donc mooy commune nu Mbao globalement ak commune nu euh, comment ça s'appelle Diamaguène Sicap Mbao. donc ce sont sept communes sur lesquelles. nous avons largement et très largement devancé. benn Bokk Yaakaar mhm. et en valeur absolue ou nous premier premiers donc nous avons mhm. donc cinq communes yoo xam ne nous sommes premier premiers là Gëm Sa Bopp dafa gagné trois communes yu arrivé premier mhm. et benn Bokk Yaakaar gagné les quatre communes de euh, Dalifort de euh, Pikine euh, Est ak je sais je sais plus quelle commune. mais voilà donc. globalement parce que euh, parce que là si j'avais les chiffres euh, on peut aller ordinateur ma jox la le résultat exacts. Mm-hmm. qui montrent que nous avons gagné avec mm-hmm. donc les pourcentages que que j'ai dit. mais sànq ci say wax da ngaa wax ne dañoo da ngaa njott ne dañoo nar a la volonté populaire est-ce que da am ay indices ci ay irrégularités yi nga xam ne ni c'est tangible. luy démontrer sa kàddu yooyu. alors nous avons deux indices par rapport à cela. Mm. acca wax na. alors le premier indice moom laa la wax léegi c'est la stratégie bi nga xam ne moom la Timbo def. Mm-hmm. dès la fin du vote muy tàmbali di manifester pour préparer l'opinion que ñu à leur victoire mm. xam nga loolu boo ko gisee. Ah. da ngay politique. da nga xam ne ñi am nañ lu ñu nar am nañ lu ñu waajal deuxième indice bi tey ñu ne am na benn bureau bu nekk Mbaaw donc je pourrais te donner le numéro exact donc c'est le bureau 32 du de de de Kër mbay Fall ou sur tous les autres bureaux nous avons entre 65 et 48 voix il y a un bureau où on nous attribue zéro voix au niveau du e et ça information qui devient à l'instant de tourbillon mm-hmm. ce qui est inc inc dans, dans dans un processus de vote mm-hmm. processus de vote mm-hmm. mënoo dans un centre fii nga am 65 fii 40 fii 48 fii 51 fii 52 ñu ni bii bureau da nga am zéro ça signifie que la machine de vol est en est en marche et nous nous entendons nous opposer à cette machine de confiscation de la volonté donc de population mm. mais sànq bi ngay lim commune yi nga xam ne ni da ngeen koo gagné da cee lim Djiddah Thiaroye Kaw mooy commune bi nga xam ne ni moom nga nekk maire mais aussi am na ay information yu ñëw ne Mamadou Gueye moo la gagné ci commune boobu. ah bon euh, nous a, nous avons également compilé ces résultats là. Mm-hmm. donc euh, c'est des résultats qui ne qui ne nous pas encore favorables il reste donc euh, un centre où il y des problèmes. mais mais mais bëgguma cee sori parce que c' est parce que c' est des problèmes que nous sommes en train de de voir. ñan problème la. waaw man nee naa sori parce que c' est des choses que nous en train de voir. Mhm. mais aussi est ce que fu mu toll nii parce que aussi euh, nguur gi peut être mën nañ leen souvent accuser ne dañuy njuut njaaj ay élections mais élections yii aussi tamit gis ngeen euh, luñ ci jëlee. peut-être mun nañ ne wax ne sax à Dakar par exemple fiasco lañ ci jëlee à Ziguinchor fiasco lañ fi jëlee mais est-ce que confiscation boobu kon loolu dajjiwu ko quoi. alors confiscation ça se fait en amont en aval xam nga quand on réfléchit sur les élections mhm. da nga am intelligence su jël jël processus bi dans son ensemble. waaw waaye doo ko jël rek bisu vote bisu vote c'est un moment précis. Mhm. ci processus eh, électoral damay rappelé ne processus bi moo abitur victoire. Yewwi Askan Wi ci ville de Dakar Ziguinchor belle Thiès. waaw mais monsieur le journaliste boo boo boo posé question ba pare da ngay da da da ngay déglu ba ba ma daaneel sama réponse. d'accord wante mënoo mënoo deviner lan lay wax pour nga couper ma. allez donc je disais que c'est un processus. Mhm. buy tàmbali depuis la les inscriptions sur les listes électorales. Mhm. alors. gis nañu inscription sur les listes électorales mhm. président Macky Sall réduire ko ak quarante cinq jours pendant toog na ñaari at yoo xam ni ni les listes électorales étaient fermées mhm. te la loi dafa demander mhm. chaque année ñu ubbi liste électorale yi pendant six mois du mois de février au mois de juillet année ñaari année yi yi yi jiitu loolu amut dernière année bi la ko président Macky ubbi ubbi ko sur une durée de quarante cinq jours boo xam ne du permettre jeunes yi ñu bëgg inscrire yëpp ñu inscrire tu es d'accord avec moi que c'est une première manière de voler les élections en euh, booy empêcher les jeunes yi nga xam ni majoritairement ils sont défavorables au régime à cause des promesses non tenues de président Macky Sall ku ñu inscrire. Mm-hmm. deuxième élément du processus de distribution. Mm-hmm. c'est l'information sur la distribution xam nga DGE dafa am une direction de la communication boo xam gis nga année yee passé surtout sous le président Wade tu voyais da nga doon gis benn campagne intense à la télé à la rajo dans les journaux pour inciter nit ñi ñu dem inscrire pour inciter nit ñi ñu dem jëli seen carte pour pour faciliter l'accès au vote aux aux populations est-ce que ren dégg nga ko benn yoon même lorsque fu mel ni département de Pikine vote bi daa changé xam benn yoon lañ doon voté liste commune bi moo doon yóbbaale liste mairie de ville bi ren ñu changé loolu nga war a voté ñaari yoon déggoo benn yoon un communiqué euh, une communication wala des spots nekk au niveau de la télé de la DGE dans sa direction de la communication pour ñu expliquer citoyen nan la ñuy voté en conséquence va voir dans les bureaux de vote di nga gis la fa nekk ci ay bulletins nul à à foison c'est une autre manière donc de voler les élections pour le président Macky Sall. Mm-hmm. troisième élément ñu gis. et ça c' est un élément fondamental boo xam ne aussi bu mu jege mën naa jox sama ordinateur les preuves mm-hmm. beaucoup d' électeurs yu nekkoon dans certaines communes ñu transféré dans d' autres communes sans leur avis man gédde naa ci samay sama sama militant bu doon voté fii ci Khalifa Ababacar si à Djeddah Thiaroye Kaw ñu transféré ko yëmbal Sud te yëgu ko waa APR ñoo doon wër ci koñ bi di laaj nit ñi nañ ñëw récupérer seen deuxième carte électeur mu dem récupérer carte électeur deuxième carte électeur bi gis ni transféré nañ ko yëmbal Sud ba pare reye turam ci liste électorale loolu gis nañ ko également donc su beneen militant bu nekk à Thiaroye Gare ñu transféré ko am euh, muy wote ji mbaaw yëgul tiinul ba élection yu jot ba mu demee mbaaw ba ñu suba la élection ba ba mu demee mbaaw ñu ne ko sa carte électeur nii donc loolu également ça dans le processus même d' inscription sur les listes électorales mën nañ ci wuruj ay mën nañ ci wóoru ay élection mm. okay. maintenant euh, les autres éléments le jour le jour du vote mm. lui-même ah. wax naa la léegi benn cas à Mbao mm. où effectivement malheureusement nu suñu représentant donc euh, ñu ngi koy war génnegul ba léegi PV bi mu yoroon mais PV bi nga xam ni donc euh, moom la ñuy bind nii zéro voix lañ fa am évidemment, c'est totalement incohérent. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège facile de dire que l'élection, quel minute qu'on parce que la presse est là, parce que c'est supervisé, parce que parce que y, qu y, a des représentants. C'est tout un processus. La loi électorale également doit demander que les partis d'opposition accèdent aux fichiers, man contrôler. Man, en tant que responsable national des élections, pendant six mois may bind le ministre de l'intérieur pour am accès au fichier pour le parti démocratique sénégalais biñ ne ginnaaw suba la élection lañ ko ministre de l'intérieur doo ko jox alors qu'on avait le droit ñu am ko depuis biñ ko laajee man a def tous les éléments de contrôle sur ça à ce moment-là li li ma lay wax di te suñu militants yi ñu transféré dans d'autres communes dinañ ko mën a gis mais boo bàyyee ba ñu subal élection nga doo a joxe fichier électoral ça signifie que amoon nañ luñ ci nëbb moo tax bugg moo tax bugguñu koon jox à temps euh, en violation de la loi électorale alors kon euh, moo tax ma ne la donc c'est assez facile de dire que parce que l'opposition a gagné kon kon on n'a pas volé les élections non c'est pas vrai c'est parce que la victoire elle est elle est elle est dafa yaatu lool victoire bi bu yaatoo lool dafay nëbb wuruj ak njuuj njaaj yi nga xam ni amoon nañ ci biir processus yi. Mhm. mais bu seeree comme fii daal ñu comprendre nekkoon dañuy am ay ndëgg sërëx yu ñu lal mais docteur nu ma la déggee nga wax tey bu résultat yi génnee atte la ñàkkal doo nangu résultat yi doo ko nangu. alors il faut que les résultats ils soit basés sur l'expression citoyenne. Mhm. les suffrages des électeurs. Mhm. résultat yi. bu fekkee dañoo génne. la nga xam ni mooy la génne ci urne yi te tey loolu man loolu ma nekk sama ordinateur parce que PV yi laa topp yi génne ci urne yi ba am yëpp amul benn problème mm. su boobaa mm. c'est l'expression c'est l'expression des citoyens xam nga mënoo di politique mm. citoyens yi voté nga ni la ma voté la ñu voté du ma ko nangu loolu amul sens en tout cas amul sens à niveau man gëmuma loolu lu ma gëm mooy ni on à des élections on les gagne ou on les perd li am solo mooy mooy l'expression mooy li citoyen yi li ñu wax loolu mooy dëgg et c'est cela qu'il faut euh, respecter benn nit ak kii kii que tu sois koo mën di doon munoo am dëgg sur le peuple le c'est l'expression du peuple qui, qui, qui est la vérité au au moment donné léegi par exemple résultat yi génn ñu ne Timbo moo gagné certainement doo ko accepté nan nga nar a pour jotaat li nga ne yaa ko moom. ah waaw loolu moom du nekk loo xam ne man rek maa koy wax kooku moom man je suis dans une coalition je suis damaa nekk ci biir group mm-hmm. bu fekkee ni résultat ya génn. Mm-hmm. dafa correspondre ak le Pikinois yi wax. waaw kooku awmu ci benn problème. Mm-hmm. bu fekkee ni nag dañoo gis. sur la base de nos PV. moom lu mooy lu nekk sa ordinateur yi nga xam ne dañoo génn. dafa wuute ak li ak li ak li ak li ak li population bi wax. ak lu nekk sa ordinateur évidemment évidemment duñ ko nangu. Mhm. maintenant il y a il y a il y a des procédures en matière électorale. la première chose c'est mooy sur la base donc de de des PV que nous avons. Mhm. effectivement dinañ saisir la Cour suprême. donc par rapport à des recours yoo xam ne dañ koy basé sur le sur des éléments factuels mais dans même temps aussi on mène le combat politique dans la manière dont dont nous l'aurons défini. léegi en tant que euh, candidat kon de wàllu Sénégal bokk parti démocratique sénégalais bi nga xam ne ni aussi mooy euh, initiateur principal wàllu Sénégal. ban jàngat nga am ci résultat seen coalition boobu au niveau national d'abord. ok bon euh, là tu une question qui va qu'il va m'être difficile de de répondre mm-hmm. parce que fi ñu toll je suis engagé dans des élections mm-hmm. loolu tax na ba du ma am suffisamment d'ouverture pour suivre résultats yi ni ñuy demee dans toutes les régions dans tous les départements dans toutes les communes et vraiment j'ai pas une bonne appréhension donc des résultats globaux au niveau national. ok maintenant à Dakar spécialement bi nga xam ne ni Doudou Wade moo porté woon seen couleur résultat yooyu tamit doy na waar de. bon ce n'est pas à la mesure de nos attentes. Mhm. Euh, mais nous attendons dinañ xaar ba am. donc les résultats dans leur détail commune par commune. Mhm. pour ñu mën ko évaluer. Euh, mais léegi. résultat yooyu ngeen am te ñëpp xam ko exactement parce que gagné woo leen toppoo leen ci bu gagné aussi lan moo waral échec boobu selon selon yow. mais moom euh, tu reprends question bi nga wax léegi sous sous une autre forme xam nga am nañ ay résultats man personnellement je peux pas diir dire nu résultats yi tëddee parce que nee naa la dama engagé wu Pikine de sorte que aw ma réceptivité. ci lan nan la Médina voté nan la xa nan la nan la Parcelles voté nan la Hann bel nan la Yoff Ngor et cetera il faut que mu am les détails de ces résultats là parce que xam naa parti bi nu mu tëddee fu nekk pour voir ndax résultats yooyu méngoo na ak lañ doon yaakaar ou pas mais loolu il faut que man ma am détails yi doog mën a def analyse boo xam ne sur analyse pertinente docteur nag ñëpp xam nañ ne wallu chiffre am résultat yu mu am au niveau de la ville baaxul yow xam nga loolu en tant que fin politique xam nga ne seen résultat yi baaxul aussi ci parti bi nga xam ne ni en 2009 rek bërki démb yéen a nekkoon euh, ville de Dakar. bon à la limite il faut bien comprendre que depuis 2009. Mm-hmm. PDS le PDS n'a n'a plus jamais gagné Dakar. Ah oui. Dakar. mais du parti bu ndaw aussi. ah non non non waaw boo boo waxee ba pare da ngay da da da da ngay déglu yow donc il faut que dans vos analyses mhm. ngeen di tenir compte historiquement mhm. ci évolution wu vote bi dans chaque localité mhm. dakaar mës na nekk un fief parti démocratique Sénégal bu dul 2002 bi Pape Diop di nekk maire nga xam ne élection yi da dafa suivre vague vague soppi bi en 2000 PDS PDS PDS mës na gagné Dakar donc Dakar n'a jamais été un fief du parti démocratique. à part parenthèse boobu 2002 2009 sénégalais. Mhm. y a une parenthèse. Mhm. ba 2002 xam ne vague 2000 moo ko yóbbaale. Mhm. à part ça à part ça PDS daawul gagné Dakar. Dakar a toujours été un fief du parti du parti socialiste. et tey c'est pas étonnant que Yewwi gagné ko. parce que quand la composante la plus significative di PS. donc au niveau de la région de Dakar. et e dans la Yewwi donc dafay logique mais moo tax ma ne la xam nga analyse boo koy def rek doo ko da nga koy da nga koy rendre assez fin mais bon ni PDS c'est un grand parti perte nañ Dakar kon et cetera bëgg ci tirer conclusion souvent mën naa ne conclusion xam ne c'est des conclusions hâtives et du duñ am pertinence bi ci war ci analise politique mm-hmm. euh, pour daaneel Karim Wade aussi tamit euh, jotul mu ñëw nga foog jàpp ci parti bi aussi. ah bon euh, loolu moom vraiment ba je disais que loolu moom vraiment donc du du du nekkul la priorité bi bi ñuy gérer fi ñu toll nii. Mhm. fi ñu toll nii on est engagé dans un dans un processus électoral. Mhm. qui n'est pas encore arrivé à ses termes. Mhm. donc la présence ou l'absence de Karim Wade. fera fera partie. donc des éléments d'appréciation et d'analyse. des élections et à l'issue de ça donc dinañ xam euh, dinañ ci tirer les conclusions. kon dañ bu résultat yi génn incha allah pour ñu mën cee waxtaan. mais incha allah incha allah. kàddu gu mujj gi docteur mais sant leen gërëm leen bu baax a baax en tout a artu président Macky Sall que ni nous au niveau de Wallu et Wallu avec Yewwi qui été d'un apport significatif dans la victoire de Wallu dans le département de Pikine. que nu sommes déterminés à défendre notre victoire et que ñu nangu en aucune manière que des manipulations donc une confiscation de notre victoire par le président Macky Sall ah, loolu moom qu'il se le tienne pour dit mais terminer aussi en félicitant et en remerciant vraiment la la coalition Yewwi donc pour le soutien bi mu indil ci biir departement de Pikine et ce soutien a été décisif et significatif pour les résultats que nous avons obtenus, pour la victoire que Wallou a obtenue dans le département de Pékin. merci je vous remercie infiniment. merci beaucoup docteur donc euh, ñuy fàttali ne yéen ñu doon teewlu docteur Cheikh Dieng mi nga xam ne nii moo porté woonu couleur wàllu Sénégal fii ci ville de Pikine moom lañ doon dalal di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.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 sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps